lamb bu yegsee fii sama yaram day daw mhm. sama yaram day daw damay fàttali na sa tàkkusaan jaak tigre waaw sama tàkkusaan jooju rëy na ay la nga bëre foofu korok ay mbàkk képp jàpp sama ginnaaw bàkk yonent bi waaye tey lamb ji dina ala doome ndax ñaari xale yi dañoo indi ci état de forme bu baax eh lamb ji du yomb lamb ji du yomb de eh lamb ji du yomb ñaari xale yi dañoo tolloo eh lamb ji du yomb tolloo nañ ci lépp eh lamb ji du yomb tolloo ci dayo eh lamb ji du yomb eh samba eh jinne jinne la lamb jinne la noonu eh lamb jinne ju rëy tey jinne cameraman Cheikh Fanaye koy jël bàkk yonent bi Cheikh Fanaye noonu borom Touba olom nga Cheikh Fanaye nga xam ne day cadre lépp cadre bu mag bi ci Mbàkke Bawol loolu am na macha allah ànd ak waa Sénégal waa Sénégal waaw ngi ñoo ngi waay waay taxaw ah, arbitre arbitre lees deux ba xam na damay def loo xamante ah. sama yaram day daw dëgg la ndax bu may génn kër ga mbooloo mépp topp sama ginnaaw mais sax ancien mbër waaw waaw ancien laa woon waaye nag mbër mu mën a jooy ngoon dinaa lees de toj ah, na nen lees toj na doon lees ñaari cuuj non cuuj am na problème antam yi gis karamam gi daa yërëm tëlu ah kii kii kii kii a lees entraîné na lees entraîné na préparé na combat bi waaw ah, loolu dëgg la waaw ah, lees deux ak Modou Anta lees deux bàyyi bàyyi ko Mbacke Bawol écurie Ndiogou Dia Modou Anta bàyyi ko Diourbel at bi sifflé na diggante Modou Anta ak lees deux lees deux ngay andeer lees lees deux ngay jat jat na ba ñaan ñoo ngi lewaatoo arbitre sifflé na. arbitre sifflé na diggante moo. jàppante nañ jàppante nañ sa waay na. jàppante nañ. Liss 2 dugal na loxo bi mbaar kaw. jàpp na ngemb. Liss 2 dëpp na col. jàpp na col ba jàpp na ngemb. Liss 2 na. Liss 2 jàpp ko sa loxo bu mu dugg foofu mu ne ko déedéet moo koy xar. moo ngi koy xar moo ngi na ko bañ na bañ na Liss 2 loolu daa sori loolu bu ko forcé bu ko forcé bu daan na la daan na la da daan da daan lees da ngaa combat bi da nga ko forcer Less da ngaa forcer combat bi. Less 2 dafa forcer combat bi. da koo koo forcer waaw bañ mu yóotu ko gars yi daf leen naan ko waaye non violence non violence. non violence non